jël fii mu dem feneen mënuñu koo jël fii mu dem feneen médecin bi nekk fi mënuñu koo jël en bi day wër ci hôpital yi balaa moo am hôpital fekk kooku décédé na si biir nu mu mhm. euh, ci biir pour pour man war nañ jël ay euh, ay euh, nu mu tëddati mesures yoo xam ne dalay permettre. Mhm. malade bu ñëwee ci benn hôpital bu nekkee ne sax docteur ba ko war a faj mu ngi hôpital Fann. kooku mën a mhm. déplacé hôpital Fann. defe naa mooy gën a yomb ci moom le temps ñu mhm. moo nekkoon mais malade ko war a faj nekk fekk kooku décédé na ci ci table nekk. des nga ñëw sax mu nekk blessure balbal ñu ne duñ ko laal tant que defuñu nu première enquête yi tant que defuñu li leneen loolu balaa ñuy laal ko kooku fekk kooku décédé nga moo mhm. tax euh, comme mami ni mu ko waxee prise en charge premiers soins mhm. dafa nekk loo xamante ne lu important loo mhm. et que ñun Sénégal fii je pense que ne euh, lu jëm ci wàllum faj moo gën a néew doole au fait. Mhm. Euh, day day day mel ni euh, feebar sax léegi ku feebar sax da ngay ragal te pourtant feebar sori na sori na dee. Mhm. mais di gis koo xamante ne dafay am lu ndaw loo xamante ne moo ko yëkkati hôpital amaana sax balaa mu faa jógee dina fa jëlee leneen loo xamante ne moom moo gën a metti maa ngi fàtt dafa may permettre ma fàttaliku. Mhm. maire bi nga xamante ne woon rek euh, dafa demoon pour ñu opérer ko ndax dafa amoon fibrome je sais pas quoi bi mu demee ñu opérer ko ba pare ndeke anesthésié ba nga xam ne yaramam yëgul dara mhm. moom ñu ngi lakk tànk bi te yëgu ko maire bi ba léegi dafay soox sa oh, qui veut dire ne des fois da ngay dem ci hôpital sax loolu négligence la mhm. da te négligence yi mhm. dafa bëri ci hôpitaux yi euh, te loolu euh, pour ñu nu mu tërati pour ñu mun ko lijjanti foog muy am ay sanctions derrière hôpital rek ngay gis euh, ñu ne six bébé gaañu na <coughs> ndax incendie moom moo fa am wala benn bembe gaañu na ndax négligence wala benn maman gaañu na ndax négligence mais mm. loolu buñ ci jógee après un mois mm. bu nit ñi buñ buñ defee ay arrestation def garde à vue placé nu mu tëdd su mandat de bu nit ñi fàttee nga jékki-jékki ñu ne may nañ leen liberté provisoire mm-hmm. après liberté provisoire dara dootu dara dootu fa tegu mm-hmm. y a pas sanction et derrière li nga xamante ne mm-hmm. moom mooy fët professionnel yi nga xam ne médecins yi ak infirmiers yi euh, bi ñu ngi koy def moo tax forcément boo xamante ne amul sanction derrière mm. forcément négligence dafay tourner moo tax état bi nga xam ne ñoo fi nekk foog ñu gën a vigilant si loolu foog ñu gën a miser sur la santé de gis naa ne sax commencé nañ ko ndax déjà bi ñu ñëwee bor yi nga xam ne am nañ seen prédécesseurs yi bi mhm. ñu am na benn partie boo xamante ne fay nañ ko nañ gën a numtarati financé ci li nga xam ne moom moo jëm ci hôpitaux yi parce que lu am solo la nit bu amul wér gu yaram mënul def dara nit ku amul santé mënul def dara mhm. ndax ku naan yal naa am alal du bëri yal naa am wér yaram ngay njëkk a ñaan parce que boo yoree ay milliards te amoo mhm. wér gu yaram amul benn sens te bu nekkee ne dangaa yor ay milliards tey corps laa war a mën faj mhm. nga dem sa hôpital ba ñu lay négligé ba nga xamante ne mhm. yéen dala fay fekk corps sa euh, médical bi rek la waxal ne ñu am plus de yërmande mhm. am plus de vigilance ñu gën bàyyi xel ci li nga xamante moom mooy ni ñuy accueillir malade bi te loolu nag euh, c'est c'est vrai que ne ku ci nekk loo gis rek mooy morgue yi ñi nga xam ne dañuy sang néew néew jomm leen parce dañ koy gis tellement tellement que après du nekk ci ñoom dara ñi nga formation bu baax a baax a baax te liggéey dafa am solo boo ciy dugg nga dugg ci ak amour. Ah. la plupart du temps li ñuy euh, rey Sénégal moom mooy ku ci nekk la ngay liggéey c'est pour outil ji ah, ah. Mm-hmm. di mm-hmm. ñaan nguur gi fi nekk rek ñu gën a accentuer sur la santé parce que nekk na problème doy waar. te ñun tamit ñun ñi mm-hmm. nga xamante ne ñun ñooy les sénégalais lambda ñu xam ne doo toog ba nga xamante ne fi mu mënatoo jóg nga ne nañ ma yóbbu hôpital. di gis koo xam ne feebar boppam di metti jékki biir bi di metti jékki-jékki mm-hmm. yaram bi di metti mm-hmm. muy ba muy baxal ay bantambaarek ay baxal ay niim di sangoog mm-hmm. di naan ay xobu mango ba nga xamante ne nee las ne lasar mënatul dara muy doog ne yóbbu leen ma hôpital bu ñu ko yóbbu urgence la jëm nañ am notion wu bu ñu dara di metti ñu dem ci pharmacie ba bu kooku ne xaw naa grave ñu dem ci hôpital ba même bu nekkee benn 500 ngay benn 2000 francs ñu teel a sa feebar moo gën nga dem

Sénégalais dañ leen di déglu donc tamit nit ki boo amee euh, chance ñu lay déglu da ngay mën a waxal ñi nga xamante ni peut-être seen kàddu yéegul foofee de sa fait suñu autorités yi gën cee mën a bàyyi xel mm-hmm. loolu c'est important la mm-hmm. santé avant tout wérgu dafa nekk lu am am solo te yéen nag réew mi ñëpp a leen jox cër donc bu neen waxee dañ leen di déglu macha allah <laughs> donc ci wàllu actualité bi euh, buñ ci duggee Mamy Samb dañ koy dooree ak li nga xamante ni euh, tout à l'heure lañ ko yëg muy convocation wu commissaire Keita Euh, ca bac bu palais de justice. Mhm. Euh, moom nag ci xibaar yi sax nee bi ñu ko convoqué waxoon na leen ni dafa am. ab urgence familiale ni ki demain euh, samedi sax mu ñaanoon sax ngir ñum boobul convocation ñu dàqal ko ko ba dimanche à ce qu'il paraît euh, mais gars ko di déedéet il faut nga ñëw tey tey tey tey tey ci xibaar yi nga xamante ni jot nañ ko depuis sànq nag mu ngi foowoon suñu ndaw également sànq teewoon nañ fa ngir mën a recueillir ci ay informations yi nga xamante ni peut-être mën nañ ko am sur place mais daal jusqu'aux dernières nouvelles mu ngi foofee pour rappel yi nga xamante ni yëkkati woon na ko ci ki nga xamante ni moom moo di le premier ministre ak le président euh, loolee moo waral waat ko loolu mu waxoon ni daal ñoom ñaar jot dañ jàppante loolee nag euh, lañ koy toppee ba tey. Mhm. Mamy Samb waaw. Euh, le commissaire Keita c'est-à-dire que c'est, clair que on s'attendait à ce que mu am euh, mu am euh, mu am suivi pour la toute bonne et simple raison que xam nga quand on euh, fait certaines révélations yoo xam ne dafa toucher le président de la République rek Bassirou Diomaye Diakhar Faye j'en arrive même pas encore mmh. au premier ministre mais mmh. le président qui est considéré comme une institution mmh. lu bëri looy wax ci moom euh, faaw nga am déjà foo ko teg euh, et puis kàddu ni kàddu yi itam ñu wodd ko mu teggi ne nu mu gënee Mm-hmm. on ne dit pas que des critiques ne doivent pas fuser vers eux. Mm-hmm. parce que am na ñoo xam ne xëy na amaana ak ñeneen ñi ñëpp mbokk ñu gis-gis. Mm-hmm. ñii dañuy apprécier ñii di bañ a apprécier mais je dis souvent. Euh, même quand on du côté de l'opposition ou en tout cas ñu nekk leader d'opinion. lépp loo xamante ne dañu koy wax dañu ko war a seet seetantal ko bu baax. dëgg la après euh, man je trouve que même que <laughs> yi mënoon na gën a am sax beneen ampleur. parce que souvent léegi Sénégal te loolu mën na nekk benn côté positif de la chose mooy ne mën nga wax loo xamante ne xale yi. Mm-hmm. mën nañ ko challenger di ko tiktoker di ko di ko di ko reetaane bañ ko jël sax au premier degré. Mm-hmm. Euh, loolu c'est c'est ça peut être une bonne chose du point de vue de la population mooy wane ne léegi mm-hmm. le peuple sénégalais est beaucoup plus réceptif. maanaam euh, bu ñuy nangu mën nañoo nangu leen ni di jëlee ko sax. ak humour mais lu nu ko kaf-kaf ak lu nu ko reetaane reetaane bu nu fàtte itam ni mhm. euh, il y a quand même euh, ay déclaration yoo xamante ne bu ko nit defee mhm. c'est clair que yoon dina la woo mhm. ne li nga wax fan nga ko teg ni la li la wax ban preuve nga ko nga ko nga ko ko ban nga ci am ba man ci avancer lu toll noonu parce qu'aujourd'hui soo jëlee un duo boo xamante ne ñoom il se présente comme tel bien que le président de la République reste le chef d'État et que Ousmane Sonko reste de di gouverner c'est des gens qui ont toujours voulu ak euh, ñu véiculer message wu ay nit ñu déggoo ci li ñuy liggéey ay nit ñoo xamante ne relation amicale moo leen jiitu ci lépp ay nit ñoo xamante ne dem nañu ba tuddante doom mm-hmm. neewuñu bañ ak làmmiñ du du du ñu laale mm-hmm. waaye est-ce que ci cadre du commissaire euh, Keïta la war a génne je ne pense pas est que aujourd'hui aussi moom mesuré na sa portée propos yi nga xamante ne jot na ko tëddiir je ne le pense pas non plus et yoon nag dafay def liggéeyam rek euh, am na foo xamante ne bu fa katt du yeggee moom c'est clair que yoon dina la woo nga joxe ay explication par rapport ak propos yi nga xamante ne tenir nañ ko mais loolu vraiment dafay servir de leçon à tout le monde il ne s'agit pas de venir et d'instaurer la peur nga yegg si ne ah man kat kenn du ma wax wala kenn du ma kenn du ma duut baaraamu tuuma wala kenn du euh, juger li nga xamante ne noonu lay doxalee réew mi mais lu ñu koy mënti def it def ko dans le respect euh, ñu jox ko def ko également dans la considération jox nit ki cër gi mu lool en tant que chef d'État parce que état rek appareil bu diis la te état xajul ci kenn dañu koy wax souvent état xajul ci kenn la preuve euh, les anciens présidents qui qui étaient là on a vu également des cas similaires yoo xamante ne am na fi mm-hmm. te pour man ce sont des choses à ne pas reproduire démocratie mën na rafet mën na nañu wute xalaat mën na nañu wute sax gis-gis ci yee doxalin waaye tout doit être basé dans l'argumentaire mm. te boo amee ay argument doo mottali ko ay révélation yoo xamante ne doo am foo ko wéer wala doo am foo ko teg mm-hmm. voilà donc on attend de voir un peu euh, suite logique mbir mi nan lay doon mais xam naa ne daal na profité waale ñëpp xamaale ni ba ci man mii ba ci ku mu mënti doon ne kaddu yu ñuy yëkkati di ko wax sur la place publique mm-hmm. war na mën a nekk des paroles responsables yoo xamante ne ku la ci dégg yow mi sa jëmmi bopp maanaam dina la naw même bu la dee xeebit ci sa ñàkk gis-gis du tere mu jox la cër bi nga yellool te kenn ku ci nekk kuy institution chef d'état ak ku mu mënti doon on se doit de se respecter loolu c'est important ñu joxante cër parce que gis nga euh, Penda qu'on ne pas la face gis nga dëkk naam xaalis daf koy développer dëgg la économie bu baax da koy développer taxawal ay filières da koy développer mais liy gën a jëmali kanam dëkk mooy jikko ju baax tant que jikko bi mu ngi fi. Euh, bu ñuy waxtaan ci dara ñu wax ko dans le degré de l'intellect. Mhm. bu ñuy waxtaan ci dara ñu wax ko ci. kaddu ak cër gi nga xamante ne kenn ku ci nekk ci ñun moom nga war a joxante ba ci cër bi nga xamante ne moom la ne nit ñi di dégloo nga bokk gis-gis ak ñàkk bokk gis-gis ak nit pour man wax yi war nañ di ko réfléchir bu baax balaa ju ko génne encore moins si ça touche le président de la République et notamment son premier ministre Ousmane Sonko. voilà. Mhm. Bah comme ni ma ko waxee woon rek Penda nee naa leen euh, gis nga euh, dañuy wax ne euh, xawma fan lañ jëm ak ñii mais ñoom ñoo xamut fañ jëm actuellement ndax képp koo xamante ne rek gouvernement bi dina la téye bu nekkul sa gémmiñ dafay nekk sa loxo.